salaamaaleykum mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di amaat mbégte lu bare bare di jàkkaarloo waat ak yéen fii ci am Amsa TV andi leen seen émission à vos bi nga xam ne nee naa leen yéen ñëpp a ko bokk képp koo xamante ne rek am na kaa boo dund wala nga gis ku ko dund muy lu wér te wóor numéro yaa ngi noonu ngeen jàkkaarlool euh, jël leen ko relever ko ngeen euh, jokkoo ak ñun di ngeen ñu jot wala ngeen jot suñuy ndaw. incha allah bu ko defee rek ñu daal di waxtaanee loolu nga xamante ni mooy kaa bi ci nu mu gën a leeree daal di euh, koy indil askan wi bu ko defee kenn ku nekk ak ni nga koy jàngatee léeg ay solution da ciy génn li ma leen waxoon nag ba léegi juguñu ci dama leen a xamaloon ni leen euh, cas boo xamante ni waxtaanee nañ ko fi rek dañu koy daal di jël ah bu ñu demee ba ca fin ba dinañu leen indil ay solution ñoo ngi ci ba léegi dafa fekk ni bu ñu defee émission yu bëree bëri dañuy daal di boole lépp def ko émission spéciale bu ko defee ñu toog ak Serigne Moustapha bu ko defee lépp li nga xamante ne ay kaala rek mu indi ci ay solution kon nag yaakaar naa ne mu ngi noonu yéenay euh, yéenay bàyyi xel rek Amsa TV di ngeen gis solution yi surtout ñi nga xamante ne indi nañ fi seeni kaa di gërëmaat bu baax a baax ñi nga xamante ne fu ñu toll ñu ngi ñuy woo du ñu wax seeni kaa ak ñi nga xamante ne fu ñu toll ñu ngi ñuy woo di wax ne seetaan nañu kaa yi waaye bu ñu sañoon borom kaa bi nii ak nii lay def wala jox ma numéro ki nga xamante ni mooy borom kaabi xam ngeen senegal dafa bëgg moroomu sénégalais boo ko gisee mbaa mu dégg ko mu nekk ci ay jafe-jafe rek day daal di xalaat li nga xamante ni bu ko defee wala mu wax ko ko jafe-jafe yooyu day daal di tàggoo ak moom loolu moo waral nit ñi di woote waaye ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen wax ni nag tey seen cas bi dafa nekk cas boo xamante ni cas bu waar la yaakaar naa ni sax xëy na kii dafa njëkk yuuxu rekk waaye bari na ci dëkk bi ñi nga xamante ni yu mel nii seeni mbokk dañ leen koy faral di teg ndaw si nee na moom dafa am pàppam nekk it ak yaayam ak magam bu góor ak rakkam bi ñu nekkee papam nekk koo xamante ni nit ku am jom la ma ngay liggéey fële ca poor yàgg na fa di góor góorlu macha allah sawar lool di liggéey di wàcc waaye papam nag dafa am mag joo xamante ni ñoo bokk ndey ak baay mag ji nag nekk nga xamante ni mi ngi dëkk à côté ñoom fi ñu dëkkee ak fi mag ji dëkkee soriwul lool mu wax ni papa ji dafay liggéey di liggéey ba mu yàgg yàlla mi dara tëwul def ci moom télé maanaam benn partie bi moo xaw a bañ comme genre AVC la ko duggee nee nag def na juróom-ñaari at ci moom ci biir juróom-ñaari at yooyu seen frère papa bi nga xam ne seen magu papa la moom ak seen papa ñoo bokk ndey ak baay deful lu dul di jaabante ci kër paa bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon timis tàkkusaan te loolee mu fay jaabante bi paa bi yàlla mayee ko kàttanam muy dem di ñëw amul benn wéradi daawu ko def léegi nag bi muy jaabante di ñëw fekk ñoom ñu ngi dëkkoon jaxaay ci côté Sénélec bi la wax jaxaay la ñu dëkkoon ci côté Sénélec bi seen kër gi ñu fa amoon am na mat na ñaari kër kër gu mag la ñu amoon foofu macha allah nekk fa ak seen waajur bi waajur bi yàlla dogalee ci moom feebar nag mu tële toog li muy toog lépp nag 15 jours bu nekk macha allah xam naa ci liggéeyam xaalisam biñ ko daan fay dañu continuer di ko ko fay da koy fekk ba ci kaw lalam mu di ko fayeeku paa bi nag mu ngi dajale xaalisam waaye AVC bi bu mu ko duggee da koo xaw a def xel bu xam xaw a tourné tuuti waaye nag jàpp ko lool léeg xel bi day dem waaye léeg xel bi day dellu siwaat mag ji nag deful ludul fa seenee luubal këru rakk ji nga xamante ne ndok dal na ko da doon liggéey yor njabootam nekk ak soxnaam mu bëgg luubal li nga xamante ne mooy kër rakk ji daanaka sax luubal na ko ba pare ndax kër gi nga xamante ni moom lañu amoon te nekk ci foofee ca naa jaxaay moom la njëkk a ñëw daal di ne paa bi damaa bëggoon jaayal la sa kër gi ndax fii nga nekk kat day am ndox kon nag damaa bëggoon jaayal la ko boo nangoo li ma la wax nga yëkkati këyitu kër gi daal di ma koy jox paa bi daal di yëkkati këyitu kër gi jox ko ba pare woo njaboot gi daal di waxtaan ak ñoom bi mu waxtaanee ak ñoom njaboot gi laaj ko ne ko est-ce que mbaa joxagoo ko kayitu kër gi mu ne leen joxaguma ko kayitu kër gi fekk booba jox na ko kayitu kër gi ba pare nee na ñu toog ba mu yàgg tabaski daaw waa ji fekk leen ci kër gi xamal leen ne jaay naa kër gi laataa loolu sax dafay def ñaari fan ñett yu ne mu ànd fa ak ay nit ñu gaare seeni oto di xool kër gi di xool duusi di xool lépp ci kër gi xam naa boobu ñey tamit euh, ni ko xale bu jigéen bi waxee wax na ne gàllaaj jàpp na leen ba ñoom réagiruñu benn yoon mu toog ba nga xamante ni tabaski jot na rek ñu ne xam naa ne ay fanu tabaski bi ci biir semaine bi ñu waree tabaski mu ñëw ne leen kër gi jar na ki ma ko doon jaay jënd na ko waaye ne suba suba la soxla këram xanaa loolu ay nit ñoo yàpp rek nga koy def ñëw rek ne leen jaay naa kër gi ki ma ko jaay suba suba ko soxla bi loolu amee nee na mu yëkkati leen yóbbu leen ci benn kër goo xam ne côté mbëbës la nekk bi mu leen yóbboo foofu kër gi benn terrain la ñu def fa ñaari nekk la wax te nee na kër gi ñu rekkoon moo gën a nu yaatu ñoom sax xajuñu fa fi mu leen yóbbu xam naa ñu boole leen neex ak leen naqari seen papa ne leen comme sama mag la génn leen ci bu ko wax dara man damay laaj sax mbapaa bi moo tay li mu nekkee noonu bi loolu amee ñu daal di dem ci kër googu mu leen wutal ni leen fay naa lépp bu kër gi ma leen jëndal di ko tabax pare ngeen dem toxu ci seen kër ñooñu it ñu ko waaw ki nga xamante ni mooy taaw bi ku góor daal di ni ko léegi kër gi nga xam ne moom nga ñu jëndal laa bëgg ñu ànd man ak yow sa tànk ak sama tànk ba ci kër gi ma xool ko comme yaa ngi koy tabax bi loolu amee mu di ko wax tey la suba ngoon yaakaaruma ne daal mujj nañ faa ànd ci explication femme bi bi loolu jàllee nag mu dëkkal leen ci kër googu ñu dëkk fa ñaari weer ki moom kër gi ñëw di leen fayeeku luyaas yaas ndax te dañu leen woon fay naa lépp fii ba seen kër di pare di ngeen fi mën a dëkk ci diir boobu bu ko defee bu seen kër paree ngeen génn dem delluwaat ci seen kër ñooñu it dëkk fa benn weer defe naa ñaar wala ñetti weer waa ji ñëw ki nga xam ne moom kër gi fayee si leen ni leen damaa bëgg ngeen fay ma sama location bi. bi leen ko waxee ñu ne ko ñun suñu magu papa bi nga xam ne moo ñu dugal ci kër gi wax na ne fayal nañu kër gi ba ba suñu kër gi mu ñu jëndal di pare diir bi ñuy tabax kër googu yépp laataa muy pare fii la ñuy dëkk ba kër gi pare ñu jóge fii dellu ci suñu kër. mun leen kooku ñetti weer rek la ma fay bi loolu amee ñu daal di woolu rakku papa ji waaye ñëwul laata loolu papa ji poor daf ko waroon a jox xaalis boo xam toll na ci 2 million bi mu yëgee loolu ñëw xamal ko ni ko dama bëgg xaalis boobu boo ko jotee nga jox ma ko ma dolli ko ci li nga xamante ni moom laa lay tabaxalee sa kër paa bi tamit d'accord ak moom loolu doom yi bañ ko mu d'accord ak moom bi yàlla defee mu jot. xaalis boobu it da ko woo ba mu ñëw mu tegaat ko ci ay loxoom mu yóbbuwaat 2 millions yi ñoom tam ñu toog di dunde yaakaar jàpp ne mi ngi leen tabaxal seen kër nee na ñu toogaat ba mu yàgg mu yëkkatee waat leen foofu yóbbuwaat leen moom mbedd mi mu dëkk kër gi taqaloo këram mu yóbbuwaat leen foofu bi mu leen yóbboo xamal leen ni fii nga xamante ne fa ngeen jóge moo nekk seen kër léegi nag maa ngi leen koy tabaxal bu ma leen ko tabaxalee ba pare dingeen ngeen delluwaat ci seen kër ñooñu tamit jàppaat loolu toogaat fi mu leen fi mu leen indi waaye ki nga xamante ni mooy soxna paa bi di yaayu xale yi xelam dalul benn yoon ci jëf ji nga xamante ni moom la magi jëkkër ji di jëf ndax xale bu jigéen bi nga xamante ni mooy doomu paa bi te paa bi di mag ci papaam xamle na ni defu ko papaam rek dafa dëkk ci di def nit ñi loolu da leen di yeew ba ñu dëgër mu jël seeni kër jaay te këru boppam mi ngi mu defar ba mu ne non te bi mu jaayee seen kër dafa yëkkatiwaat këram fi doon daanu ci dafay defaraat dal bi ba mu normal jënd ay fauteuil jënd otoom bu bees tàq ci tënk daal xale bu jigéen bi dafa wax ne jënd lu leen kër daf leen bàyyi ñuy luwe ba pare fa séenee jëm ak ñoom ci génn leen ñuy taxawaalu te duñu am fu ñu dëkk mu mel ni comme jaayul këram waru woon a jaay kër frère ndax comme daa am njaboot frère am am njaboot kenn ku nekk da ngaa war a yem rek ci sa kër ma jàpp ni nit ko ku nekk boo amee sa frère wala sax sa mbokk koo bokkaloon ndey ak baay mu doon liggéey ba yàlla indi ci moom jafe-jafe pour man da ko war a jàppale xool noo koy fajee ba mu wér mais pas nga bëgg luubal lii di alalam te mu yor njaboot yor soxna lu doy waar lu metti bi loolu amee nag xale bu jigéen bi nga xamante ni moom moo woo expliqué ma kaa bi nee na moom magi papaam jooju mujjewul lu dul woo ko téléphone di ko doxaan ak di ko woo ci ay hôtel wallaay ndeysaan muy lu méttee metti muy lu doy waar muy loo xamante ni nee naa leen bari na xam naa ni kii dafa njëkk a expliqué kaawam rekk waaye di leen bàyyi xel ni ak lu mu yàgg yàgg yàgg mën saa yu nekk yàlla mën na koo jël andi mën di mooy comme loolu mu teg sa frère boobu nit ku nekk dangay ngay ëllëg ndax lu mu yàgg-yàgg ci bàmmeel rek ngay mujj te bàmmeel boobu boo fa demee lañ fa jëf rek nga fay fekk te lii lu ñaaw la boo ko defoon ab jàmbur sax jekkul rafetul waxuma waxumalaat nga def ko koo xam ne yéen a bokk ndey ak baay ay doomam di say doom soxnaam di sa soxna këram di sa kër yow nga anta na jël sa kër dëkke ko ak sa njaboot anta na jël këram néeg koo jël ni ko tell jaay jël xaalis bi def ci sa poche dik ko ko dinaa la jëndal kër te ko dara boobu tas yaakaar tas nga yaakaaru njaboot gi tas yaakaaru soxna si tas yaakaaru ki nga xamante ni yéen a bokk ndey ak baay xanaa bi ngay def loolu sax nga xalaat ni kii sama rakk la ñoo bokk ndey baay damaa war a jënd kër dugal ko ci dama ko waroon fekk mu wéradi ma jël ko yóbbu hôpital def ci sama alal te ci biir xaalis boobu wax nañ ni dem nañu ni ko suñu papa dañ ko war a jëndal ordonnance te fi mu toll nii yoratuñu xaalis instant bi dañoo bëgg xaalisu kër googu nga yor nga jox ñu ci ñu jëndal sama papa ordonnance mu ne leen carrément xaalis ma fi yor du pour ordonnance pour kër la ak tabax mu mel ni xanaa damaa yaakaar ne même bu fekkoon yorul xaalisam sax war nañ koo indil ordonnance rakkam mu jënd ko waaye waaye am na ñoo xamante ni sax dañu taxaw ci pharmacie yi nit ñi bu ñu ñëwee di jënd ay garab ñu gis ni yow mi nga xam ne dangay jënd ordonnance danga cee am jafe-jafe dañu génne mottali la mbaa ñu fayal la yow nga bokk nit ki ndey ak baay ñu ni la indil ci xaalis bi nga xam ne moo ko moom ñu jënd ci ordonnance nga di leen carrément ruusoo ci dara xaalis bi du pour faju pour kër la ak tabax doy na waar mbokk yi xam naa ne da ngeen di xool rek nu ngeen koy jàngatee kenn ku ci nekk daal di ci indi sa ak sa xalaat ñi nga xamante ne ñu ngi am yéene boobu ci seen frère wala ku dul seen frère ñu xam ne baaxul ñu tegaat ko ci suuf ndax laataa ngay génn àdduna sax loolu nga xamante ne moom nga def suñu borom dala koy woon ba pare bala ngaa dem oto bi nga ci jënd doo ko jariñoo lu bari kër gi nga ci yëkkati doo ci dëkk lu bari bépp soxla boo xamante ni faj nga ko ci dafay delluwaat nekkaat soxla bu gën a mag jàkkaarloog yow di la xool te doo ko mën a faj kon nag nga bàyyi xel ni lu mu yàgg-yàgg da ngeen di génn kër yi dem ca pax ma te ma waaye waaye la fay fekk ñaanal yàlla mu doon lu baax kon nag mbokk yi lii lañ leen woon ci seen émission avocat fii ci Amsa TV di wax ne rek numéro yaa ngi noonu képp koo xamante ne yaa ngi ak sa kaa toog ak moom jàpp ni lii waruma koo wax war naa koo wax su ma ko waxee tas mbokk dëkkandoo gi day yàqu déedéet. expliqué ko ba mu leer jëlal numéro yi nga woote wax lépp dinañ ko waxtaanee fii te dinañ la ci indil solution problème boo gis solution rek moo ko mën a régler dinañ leen ci indil ay solution di leen wax ne fii la ñuy yem ak yéen di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah ci beneen numéro émission avocat.